li fi dajale mooy comme dañuy tënk rek mooy ku nekk xam na ni pandémie bi am na accepté nañ ko coronavirus mu ngi si dëkk bi nangu nañ ko mais ñun ay citoyen lañu tey li ñuy wax nii tey suñu devoir la suñu doléance aussi mooy tey secteur yëpp ñu ngi bougé ñu ngi def seen activité ba mu des làmb donc tey nag li ñu dajale fii tey base bi dëgg dëgg dëgg mooy qu'est-ce qu'on va pour démarrer saison de la lutte sénégalaise mooy première ambition bi moo ñu dajale fii tey euh, beneen point bi mooy euh, tey pandémie bi am tey crise bi am man sama secteur sax la gën a frappé la gën a laal muy mbuur ndax ku ne xam na ni euh, émigration clandestine bi am li ci ëpp tey mbuur moo nekkoon point de départ bi man mii tey xam naa ci mbër yu bëree bëri bëri bëri yoo xamante ni si la ñu jaar ñii yegg nañu ñi yàlla jël na seen bakkan kon man sama secteur la gën a touché donc ñu ngi xaar nag état lan la war a def tey pour làmb pour suñu secteur donc comme je suis le porte-parole donc damay ubbi euh, ku nekk tey am nga sa am nga sa xalaat mais man li may wax rek mooy tey ñëwuñu fi tey pour bras de fer ak état ou def violence ou forcer. dañu ñëw en tant que ay citoyen parce que pandémie bi mu amee le président Gris Bordeaux dafa def benn acte noble dafa euh, waxtaan ak bureau bi yëpp ñu jël sunuy buy ak sunu daqaar ak sunu suukar lépp teg ko ci loxoom mu yóbbu ko jox bi donc kon tey bu ñuy wax euh, acte acte citoyen tey kon mbëri ñëw si jiitu kon nag il est temps état gestuñu xam ne ñun ñu tey kenn ku si nekk dafa am lu nekk sa ginnaaw kenn ku si nekk nag di nga jiite famille da nga jiite écurie tey bu ñu toogee di wax peut-être du pour ñun mais dañu am ay xale yu nekk suñ ginnaaw yoo xamante ni si làmb la ñu yaakaar tey ñu si bëri ñi fi wax tey jot nañu combat mën naa wax ne ñu si jot avance complet bariwul ku si nekk da am loo jot rek ñu ne demal nga préparé di xaar xaar bi kañ la jëm xaar bi kañ la jëm ak fan la jëm ak kañ la xamuñu kañ la ñu ngi janvier bu ñu demee mois fin d' avril mai koor gi la juin juillet saison bi tëj même bu ñu ubbi woon janvier tey saison bu gàtt la am donc mbër jëloon avance avant saison bi tëj daaw kañ la ñuy bëree ak fan lañ koy bëree ah donc loolu nag actuellement dafa dafa metti dafa metti tey jii euh, man am na lu ma laal baal laalam lu mu laal ñu ngi toog di xaar waaw ay comp mooy laal bi léegi ñu ngi toog di xaar jeex na bu yàgg ba fu nekk nii ku la gis yaa danaan yaa ngi si plein plein préparation combat. te yan condition ngay préparé mënoo con mënoo préparé à 100 pour cent donc ñun accepté nañu ni pandémie bi mu ngi fi mais il faut ñu trouver ay solution il faut ñu trouver ay solution pour xool naka la ñuy ubbee stade yi lan la ñuy xaar si loolu la ñuy xaar si état bi nag parce que tey secteur yi yëngal nañu te dafa am benn moo ma dégg na gars yi wax lu bëri ay mbër yi bu ñu yëngalee bu ñu bëreewul agression day am ay nangam nangam non non non loin de là nañu dindi loolu nañu ko dindi mbër yi mbër yi c'est des ay noble lañ ay noble gis nga ku bëgg a gis gor ku bëgg a gis noble dëgg dëgg dëgg jàppal mbër parce que xam nga xam nga ñun ñi ngay gis nii. dañuy demee suñu ngor demee suñu sac deme suñu sutura tey bi pandémie bi amee mënoon nañoo toog deux trois mois rek ñu commencé naan nañ ñu dimbale nañ ñu jàppale nañ ñu sarax mais ban bër nga dégg gu mu ne nañ ñu dimbale amul li ñu soxla xam nga mooy lan am na xale yu toog sunu ginnaaw mais li suñ devoir la nañ ñu ubbi ñu liggéey waxuñu nañ ñu may waxuñu nañ tey devoir la aussi ñu ñu ñu demandé ñun li ñu moom si état bi parce que tey état bi ñu dañuy fay impo man damay fay ah da dama dama créer emploi dama am entreprise donc kon tey damay def si état bi état bi tamit lan la war a def si ñun kon nag pour ma bañ a guddal samay yeneen partenaires ñu ngi fi ku nekk am na lu mu a wax euh, tey boo gisee xale yu bëri tey di mbëkk di jël gaal yi mooy dañu manqué espoir seen dëkk te nag xale bu ndaw sax boo ko dàqoon tey muy reculer ba sës si miir bi day riposter. tey boo nee xale yi nañ toog si dëkk bi il faut nga jox leen banc bu ñu toogee état nañ gën a créer ay emploi parce que fii li gën a métti nag mooy tey nga jàng ba mu sa yenn diplôme yi def demande fu nekk donc ñu rejeté la da nga naan man sama jàng la la ma jëriñ. rek voilà da naan man sama jàng la ma jëriñ dootu amati espoir sa dëkk état ñu ngay lancer nappel appel ñu ngay lancer un na nga gën a créer emploi na nga gën a créer emploi te. ñu essayer nag ut solution naka la ñuy def pour ubbi ñu suñu làmb ji ñuy liggéey